Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf wàllu politique ak wàllub yoon ci la yéene yi xëyee tey réew mi quotidien di nettali li nga xamante ne moo xewoon ca Dakar Arena ci samedi gi muy meeting bu mag giga meeting sax la ko duppee bi nga xamante ne Pastef amaloon na ko foofe yéene kaay bi di xam ne ni kon mobilisation bi moom foo ko nat weesu na ko li ciy fës nag bokk na ci kàddu yi nga xamante ne njiital parti bi ci boppam yëkkati na ko moom Ousmane Sonko yàqlu mel ni xamee opposition bi nga xamante ne dafa jàpp ni xamuñu fu ñu taxaw taxawaayub Sonko ci giga meeting boobee ci la l'observateur xëyee tey tamit moom jiital Pastef mel ni ki wane njàmbarteewam moo tax suñu naataango yi duppee sax super héros waaye yéene kaay groupe Futur Média bi di xam na ni kon kàddu yi nga xamante ne moom Ousmane Sonko ci boppam yëkkati na ko rawatina ci coowal Azer bi ñu bëri ci société civile daal dinañ koy ŋàññ donte mel na ni kuy layal ñi nga xamante ne ñooy ay ndawam ba mu ba noppi ci na mu fexe ba ñu daal di koy atte par contumace ci mbiram Sweet Beauté yile kàddu yi njiital Pastef yëkkati moo tax Vox Populi gis ni ci giga meeting bi daal moom Ousmane Sonko wane na ci boppam def show dëgg ca fi nga xamante ne moom mooy Dakar Arena li xewoon ca Dakar Arena bis jour jàpp ni test bu rëy la woon bi nga xamante ne Pastef def na ko ci samedi gi li Pastef def ci samedi gi ci Dakar Arena yor yor bi jàpp na ni daal luy xeeñ moom leer na ndax majorité écrasante le parti bi war a am ci élection législative yu dëgmal loolee sax mooy mbëbatu njiital parti bi ci boppam ci les échos Ousmane Sonko di xam ne ni majorité écrasante la bëgg ci assemblée nationale yéene kaay bi yokk ci ni moom premier ministre nettali na li nga xamante ne dundoon na ko ci wàllub yoon ci Sénégal ba noppi daa di dóor eeku ñii di waa opposition Sonko yamul ci kuy ndax mujj naa dajale lu ëpp juróomi téeméeri million ci suñu koppar ci diggante ñetti fan képp te mbëbëtam moo nekkoon mu daal di yegg ci benn milliard ci le quotidien yéene kaay Sonko di récolter bu gan moom di écopé ndax njiital Pastef jamono yi nga xamante ne mu nga doon fësal levée de fonds ca Dakar Arena ki nga xamante ne moo jiite mouvement gëm sa bopp ñu ngi ko teg loxo ca Bakel ngir refus d'obtempérer bi nga xamante ne waa gendarmerie moom lañu koy tuumal liy xew ca Bakel Walf Quotidien dafa jàpp ni salfaañe ak ak yelleefu opposant yi la ba tax mu gis ni daal mbir mi yëfu jaay doole génnu ca génn ñu ci jamonoy pré-campagne waaye mu mel ni tension bi yéeg na lool jamono ji bu ñu sukkandekoo ci Sud Quotidien li ko waral yéenekaay bi jàpp li xew ca Bakel tax gendarmerie teg loxo Bougane Gueye Dany ñu mujj koo denc gardaaw yi tax na ba opposition bi di yuuxu ne kon yëf yi jaadul yéenekaay bi yokk ci ni moom bu Bougane Gueye tey ji la war a janoo ak procureur bu Tambacounda tey laas wax ci géej yi nga xamante ne mu ngay walangaan nangu ay dëkkuwaay ca diwaanu Bakel ak li ko wër ñiy loru nag ci cru boobee suñu naataango yi di xayma ni kon toll nañu ci juróom fukk ak juróomi junni doomu aadama inondation yi nga xamante ne fleuve Sénégal ko ko natt weesu na ko ca diwaanu Bakel njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ma fa demoon daal dinay xayma li nga xamante ne moo jëm ci organisation des secours yi lu tollu tamit ci juróomi téeméeri tonne nga xamante ne ay dund la yóbbu nañ ko foofu ngir taxaw askan wi askan wi ca Bakel di dund lu métti jamono ji bu ñu sukkandekoo ci la Soleil yéene kaay bi defi reportage ca Yafeera muy village bi ñu jàpp ni moo gën a loru ci inondation yooyu nee ñu nag diggante Bakel Matam ak Podor lu juróom fukk juróomi junni doomu aadama ñoo ca loru kàdduk njiitu réew mi ci biir yéenekaay an bi ne kon dinañu fexe ba taxaw ñii nga xamante ne kon ñoo ca loru ci wàllub kaaraange ba ci sax wàllu wërgu-yaram ak ndimbal gi nga xamante ne dañ leen koy jagleel ndimbal gi bokk na ci Thierno Madani taal mi ci yëkkati kàddu di sàkku solidarité nationale jëmale ko ci askan woowee nga xamante ne loru nañ ci état tamit taxaw ci benn yoon ndax libération mu ngi ñuy xamal ni lu toll ci juróom-ñetti milliards la ñu fas yéene dugal foofe ca diwaan yooyu ci wàllub dundin ba ci sax hôpitaux yi tamit mobiliser nañ ko état jamono ji nag muy gën a yokk discours am njiitu réew mi xam le fan yi dinañu wéy di leen taxawu te démb donte dimanche lay tamit premier ministre Ousmane Sonko libération mu ngi ñuy xamal ni jiite na ab ndaje interministériel ci wàllub inondation yooyu nga xamante moo xew ci diggante Bakel ak Matam ci xëtam bu njëkk moom libération dikkaat na ci faatub njagamaar bi ñu jàpp ne da doon jaay boppam ca Ngor yéene kaay bi ne Cheikh Niang mi nga xamante ne teg nañ ko loxo mujj na nangu ni kon moom moo faat soxna si ci boppam gannaaw